une faute, soit il joue avec son partenaire. Et ça, c'est une très bonne chose. Il dépense moins d'énergie et c'est beaucoup plus efficace. La oui, il est tout seul, mais il a l'habitude de, jouer. C'est-à-dire que toute la saison avec Naples, il a joué de cette façon. Naples, tout le sait que c'est dans les transitions qu'il gagne les équipes, avec beaucoup de projections sur les côtés et, et au En tout cas, ils, le font super bien et ça marche jusqu'à présent. Après, il y a eu neuf frappes ivoiriennes. Il n'y a, eu que deux qui ont été cadrées. Et neuf frappes, ça veut dire qu'on a du mal à, entrer dans la surface. Donc on est obligé sur les, sur les distances d'essayer de frappe comme, euh, comme Fofana le fait souvent. Euh, Gambour, euh, les 45 premières minutes, avantage à l'équipe du Nigeria. Oui, mais on sait bien que ce qui nous a étonné, c'est que cette équipe ivoirienne n'a pas l'habitude de commencer ses matchs comme ça. C'était toujours possible pour eux dans les 15 de, de la balle. Et je pense que c'était surtout une stratégie de la part de, de cette équipe nigérienne, d'essayer de les, de les arrêter, non seulement de leur laisser le ballon, mais d'essayer de leur écarter le, le plus possible dans, dans, dans la, dans, dans Parce que vous voyez la défense nigériane avec Ebon, Massé et, et Ayadi, c'est vraiment du, solide, c'est des tours de contrôle. Et donc c'est parce qu'il a entraîné euh, un, un Sébastien Allaire qui, qui n'est pas euh, justement dans, dans son position. Après,

Essayez pour la première fois la Côte d'Ivoire encaisse un but en finale de CAN. Ouais, c'est la toute première fois. Ah, toute leur finale jusque-là, c'est 0-0 Serigne Ndayane doomiroo walaay yaay seeti baay laay rasool Serigne Serigne Ndayane doomiroo walaay yaay seeti baay laay rasool

sëngseene mamay maami bay Abdoulaye Thiaw sëngseene mamay lool yaay ramu jam ni ramu jam ni jiinoonin bay lay maami bay Abdoulaye Thiaw sëngseene mambay lay yaay ramu seen loxo yi ca kaw a kaw Layla mi bay Abdoulaye Thiaw soxna seene Layla yaxira mu jaam ne mu jaam ni yinooni Layla mi bay Abdoulaye Thiaw soxna seene mam bay Layla yaxira mu الجليل الله لا يدغل دغلم يا مويون باي لاي ماديو سن لحي تكوكو كنن دليل الله لا يدغل دغلم يا مويون باي لاي ماديو سن جساو باي zawba kañ ngeen jëli allah yaa yaa yaay gën di mi de ci ci jamono yaay ramu jàmm ni yaay ramu jàmm ni dundal te wer bàyyi yaa dogal dogalam yaa yaay kan indee ci jamono yaay ramu jam ramu jam ni dimbal te bay Abdoulaye Thiaw yaay dogal dogalam yaa moo yóbbi bay maa di woo sëñ na ca saw ba ca saw ba dundal te yaay gën di mi dee si jiyanana yonanti laa xam ni ku ko yaakaar dina dajeeg moom laa xam ni ku ko yaakaar di nga daje laa kaw yonanti laa xam ni ku ko yaakaar yàlla na ko dajeeg moom laa xam ni ku ko yaakaar di nga daje فتى قوي بلا خمي كنت يا كاري المن تدينو بلا خمي كنت يا كار من راجك بسم الله جميك جير من مبين Serio? خيرولا يا عيسى الزبايل رسول يا شريف بكل ما سنقال جلال ما قدم فراس جاري تازني إيطاليا سابي عانغناو يهو عانغناو دوميرو يا شريف شريف يا دوميرو يا Et c'est euh, pour la première fois, la Côte d'Ivoire encaisse un but en finale de CAN. Ouais, c'est la première fois. Il y a des Toutes leurs finales jusque-là, c'est 0-0.